dundam euh, danger ma nga ci mm-hmm. loolu ci 2022 bi la xewee ci 2022 bi lu jar a bàyyi xel moo di ne ci lañ gisee ñaari takk der yu disparaître mm-hmm. ñaar mm-hmm. Euh, kenn ki ñu jékki-jékki ne for nañ ab néewam keneen ki ba fi may waxee ak yow nii kenn mënula wax en tout cas ñun mënuñu ko ne fii la ne ci takk der yoo xam ne dañu wax ne dañ doon liggéey ci wàllu renseignement kenn ki ñu ne ñu ngi ne woon ci GIGN comme ni ko Aminata asom jaata binde woon fan yële ci ginnaaw ñooñ wax ne dañoo réer euh, tey jii soo réeroon yow ñoom ñoo lay wëri mm-hmm. donc bu ñu réeree lu garaaw a garaaw la mm-hmm. ci atum 2022 euh, bi Coro da ngay jàpp ne lu ëpp ñaar fukki doomi Sénégal ci ay ndaw surtout ñi ngi ci kaso bi te dara tegu leen ko luul wax wax seen gisiin ci ni nga xam ne noonu la réew mi di doxe mm-hmm. muy lu muy lu doy waar ci atum deux mille vingt 2022 bii ñuy génn euh, diggante tey ak suba ci lañ yëkkatiwaat mbirum Sweet Beauté mm. ak euh, li nga xam ne moom lañ tuddee les auditions sur le fond yi nga xam ne le juge Maham Diallo moo ko doon amal mm. buñ ko tuddee forcément dalay fàttali ne mbir moomu fukki doomu aadama ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan mm. ñi nga xam ne ñoom lañ xam officiellement ay centaine doomu aadama jëlee nañ ci ay blessures am na ci ñàkk seen i cër am na ñu ci nekk handicapé à vie te mbir moom moo ko waral mbir moomu ay milliards yi milliards ñàkk nañ ko ci ci koomuk Sénégal ci atum 2022 bi d'ailleurs ci mbir yooyu ci lañ ci gis lu bees mooy ay audio yoo xam ne moo ci génn bañ ci génnee lam ñu xamal moo di ne daanaka ñun li ñu doon waxtaane diggante mars 2021 ba jamono ji dañu doon lépp ñu wax ko ci lu simple rek ay lépp la woon parce que boo dégloo audio yi nga xam ne moom mooy daw ci dëkk bi doo mënoo ko jox beneen qualification moo budul li ñu taxoon ñuy xeex di daw ak di di daw ak euh, coow télé boo génn dégg boo tijji dégg ñu ko ci wax ay lépp la woon ci atum 2022 bi euh, ci la la cour des comptes génne benn rapport boo xam ne defe naa ni cour des comptes IGE OFNAC euh, nu ñu koy wax sax IGF bari na ay Euh, nu ñu koy waxee ay rapport yu ñu génnee mais bii moom euh, coow li mu jur gëj na koo jur. wala boog bu ma sañoon ne mosu koo jur. Hmm. li ko waral nag mooy scandale yi fa mu toll la. Hmm. dafa rëy ay milliards yu bëree bëri yoo xam ne dañu wax ne bi nit ñi di tëdd ci seeni kër mënuñoo génn ñeen tëdd ci lalu hôpital ci la ñeen ñi profité. li ma ci li ci gën a doy waar mooy li ma wax fi àjj bu ma fi mujjee hmm. mooy euh, chiffres yi nga xam ne dañ ko doon manipuler. ci manipulation bu doy waate te kenn def ko ku dul jàmbaar yi nekk ci ministère de la santé. Euh, te loolu coow loolu dana continuer en 2023 parce que jàppal ne tey jii suba ma am na marche bu ci war a am. le 6 am na beneen grand rassemblement bu ci war a am mais le 31 décembre également concert casserole boobu ñuy tudd euh, dénoncé lu mel noonu ci la ci la bokk. ci 2022 la xewee moo tax ci ci bu ñuy jeexal at mi souvent da ngay dégg ñu ne kon. président de la république dafay def lu ñu tuddee discours de nouvel an. wala discours de fin d'année. Mm-hmm. yaay seet noo koy tuddee. Mm-hmm. ci discours boobu ñu bari dañ koy xaar mu ñëw ci yenn question d'actualité yi. Euh, ci la ñu mel ne waa yeewi askan wi tànn ne ñoom dañuy def li ñu tuddee concert de casserole. Mm-hmm. concert de casserole ñu ne ñu ngi koy commencer bu président de la république waxee sénégalais sénégalais bonsoir <laughs> bëgg a commencer def discours am ñu commencer tëggi bool. te concert de boobu dafa dérangé amagul de mais déranger na Macky Sall dérangé goo xam ne muñ na ko mun muñu koo muñ démb wax na ci. Mm-hmm. parce que démb nee na avenir réew mi nekkul ci loxo yi ñoo xam ne dañuy tëggi bool. ku nekk nag ku ci gis sa bopp mais moom daal nee na réew mi newul ci ñi nga xam ne dañuy tëgg bool ma ne kon de war na ko wax soxnaam ndax moo fi dajale woon tëggkatu bongo boobu ci biir palais <laughs> ñuy tëggi bongo ñuy tëggi bongo mm-hmm. tëggi bongo ak tëggi boole yam rek amul benn différence mm-hmm. te bii sax bii sax bu ñu sañee moo moo gën fuuf ndax ñi koy tëgg tëgguñu ko pour di eh, màcc tuñ ak sabari eh, la eh, di sabaru mais dañ ko tëgg pour wax seen naqar mm. te loolu am na amoo daan am ci Sénégal am na ci yeneen réew te Macky Sall moo gën a xam mais li ma waxoon ci concert casserole bi vendredi dinaa ko waxaat fii moo di ne euh, ah euh, non woon vendredi mercredi non mardi mardi bi may def benn live fii ci Walf euh, chaîne YouTube Walfadjri dama waxoon ne man président Macky Sall di jël kàddu wala boog président de la République di jël kàddu war a wax ñuy tëgg ay casserole man d'accord ma ci. parce que dama jàpp ne institution la boo xam ne su fekkee ne dafa am ay moment yoo xam dañ ko jagleel les institutions de la République surtout bi nga xam ne moom la ñu wax ne c'est la clé de voûte des institutions mooy institution bi njëkk ci institution yi su dee wax man nañ koo cërale déglu ko bañ di ko euh, bañ di euh, tànqal discours am ak ay bool mais Cheikh Tidiane bi ma ko waxee pare dafa am benn kilifa gu baax ku ma respecté lool mm-hmm. koo xam ne lu ma wax da koy seetaan mu woo ma ne ma Moustapha nag euh, yàgg naa yàgg ngay wax may d'accord ak mais bii moom d'accord ma ak yow <laughs> ma ne lu tax sëñ bi mu ne ma gars yi nañ tëggi bool ba mu neex leen ma ne ko dé te kil ki mu kilifa la mm. mu ne ma nañ tëggi bool ba mu neex leen ma ne ko lu tax mu ne ma mais président Macky Sall ma ne ko moom mooy premier responsable lii <laughs> uh-huh. noonu laa mu ne moom mooy premier responsable lii mu ne parce que bu fekkee ne institution bi mu incarné moom waaw da koo joxoon gëddëwu institution bi mu war a nekk nekk au dessus du lot yamale sénégalais yëpp ñu nekk benn benn sénégalais du xalaat muy wax ñuy tëggi bool te mais bien sûr te ñi nga xam ne ñi nga xam ne dañuy woote di tëgg ay ay bool ñoom dañoo jàpp ne Macky Sall bi nekkul seen nekkatul seen président te moom ay incarné. loolu li ko def. Mm. mooy li ñu tuddee li mu waroon a nekk mooy la clé de voûte des institutions nekk sénégalais wu sénégalais yëpp nekk le père de la nation Abdou Diouf doon wax ne maay seen bàyyi ma ne ko juub te gu rëy la nekk le per de la nation. Mm-hmm. ce père de la nation la je suis désolé mais parfois booy dégg Macky Sall muy wax ngay xool ay jëfinam ngay xool jëfinu ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom camp da nga naan est-ce que Macky Sall comprendre na lan la loolu tekki. wallaay. Mm-hmm. mu ne ma boo xoolee Moustapha leneen ma ne ko lan mu ne ma président Macky la kilifa gi moo wax de mu ne ma mais mosul respecté ay opposants ba pare yéen ngeen bëgg opposants yi respecté ko Cheikh Tidiane c'est le seul président au monde ba àdduna di àdduna ba léegi même les dictateurs duñ wax loolu Macky Sall rek mooy président ma sa taxaw ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mais la plus simple expression de l'opposition bu fekkee ci tëgg bool la yem ñu tëgg lii mooy résultat bi. Mm-hmm. encore une fois man d'accord ma ci président de la République ñu wax ñuy tëggi bool. mais damay wax li nga xam ne ñi nga xam ne ñooy tëggi bool fan lañ teg di tëggi bool. beneen bi mooy tey Cheikh Tidiane le le président de la République tey soo koy xool dafay comporté wu pratiquement comme benn chef de camp. koo xam dafa am camp far ak ñoom. nekk seen chef. dugal leen ci dara ju toll nii. lu ñu def baax na lu ñu wax baax na. bu sëriñ mi waxee loo xam ne baat la rek bu jubadi. duñ ko ko baal dañ koy jàpp def ci kaso bi. Mm-hmm. wax naa la sànq ne am na ñaari gendarme yoo xam ne wala boog benn gendarme ak benn militaire yoo xam ne dañoo réer Fadilou Keita mii bokk Pastef dem kaso. réeru ñooñu moo ko yóbbu kaso parce que dafa bind wax ci lim ci xalaat. Mm. te pourtant bi mu wax am na keneen ku bokk ci président de la ku ne ñooñu dañ leen fàtte moom xam nañ ku leen fàtt ak leen fàtte. Mm-hmm. ba léegi mosoo dégg procureur ne nañ ma ko wool mu ñëw ma laaj ko ne serait-ce que ma laaj mm-hmm. parce que damay enquête ma laaj ko moom lan la ci xam wax ma ko mosoo koo dégg. kumba am ndey kumba amul ndey. kooku mi ngi tax ba léegi mi ngi wër ci plateau télé yi di wax lu ko neex. di wax lu ko neex. fii ci Sénégal lañu jàpp benn député ne da doon ay faux billets ñu jàpp ko def ko ci kaso bi section de recherche mën a ci enquête bu mucc ayib mais ñu libéré ko may ko liberté provisoire. muy doxi soxlaam mu wax devant tout le monde ne yàqu na moom. exactement waaw yàqu naa mais mais mais tey moo la gën a libre yow. Hmm. fii la xewee fii ci Sénégal. Sénégal gii la ñu war a installer le président de l' assemblée nationale lu ay fukki fukki gendarme ñoo ne ci biir saalo pour ñu mën ko installer. Mhm. Sénégal googu boo fa tollee wax naa ko waxati ko dangay dem bu mu jàng nga d' accord ak ku mel ne maam Birame Wathie miy wax souvent ne ñun nekkatuñu ci république. Cheikh Tidiane bu ñu nekkatu ci république su président de la république waree wax le 31 décembre ñenn ñi génne dañuy tëgg ay ay bool mais da nga koy comprendre encore fois d' accord du tee nga nangul ñi nga xam ne ñoom ñoo jóg pour tëgg bool yooyu. parce que tey Thioro mi ngi koy wax sànq Cheikh Tidiane wax yaa ngi koy yaa ngi koy dëggal su fekkoon ne président de la république euh, comporté woon na ni nga xam ne dëgg dëgg dëgg moom la moo. enfin su me su meloon Macky Sall bi nga xam ne moom la promettre woon Sénégalais en 2012. su ko meloon ba 2022. tey bu fekkee ne am na ay opposants yu woote ne dañuy tëgg bool heure bi muy discours nga gis ay sénégalais yu jóg ne non du fi amee. du fi président de la république la mais malheureusement tey wax naa ko keroog mercredi dinaa ko répété fii bari na ci ay sénégalais yoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne Macky Sall fi mu toog fauteuil bi mu toog dañ ko mënalul dara mënuñu ko fa jële moo tax ñoo nañ ko fa bàyyi rek ba 2024 mais jàppootuñ ko président ñoom te loolu dafa bari Sénégal lu tax d'accord ci peut-être yaakaar na ci discours bi dina ci wax loo xamante ne indi solution wala non non discours non non discours bi ma yaakaaruma ci dara euh, euh, séentuma ci dara te yàlla xam ne bu du woon bu ma nekkuloon journaliste boo xam ne ci yoo ci loolu laay liggéey discours mën a déglu heure boobu mën na ma fekk may reer mbaa sax man loolu dérangé wu li tax ma wax ko mooy waxuma ko pour Macky Sall waxuma ko pour discours am dama ko wax pour institution bi mhm. tey jii bu président bi tuddoon Cheikh Tidiane Gomis je tiendrai le même discours moo di ne c'est le président de la République institution la institution boobu heure bi muy wax dafa am cër buñ ko ameel mooy respecté ko mu wax a pare mhm. mais bu institution bi respecté wul moom li mu incarné parce que institution boobu euh, Cheikh wax wax dëgg nag dafa dafa gis nga institution boobu bul fàtte ne moom moo recevoir ci palais de la république koo xam ne son seul fait d'arme mooy sàcc ay bulletin wu jàmbur dem sàkkal ko pexe président de la république recevoir ko ci bureau mhm. bul fàtte ne institution boobu institution boobu moom moo fekk beneen institution ci Sénégal ñu koy woowe la justice def benn liste ne ko ñii buñ génn réew mi mu jël ci kenn dugal ko ci avion dem ak moom Conakry Macky Sall moo ko def mhm. moo ko def institution boobu ngay wax euh, faatu man ma koy wax mooy institution bi nga xam ne dafa fekk ay nit yoo xam ne dañ leen def ci ab liste euh, di ne dañ leen di poursuivre mu fal leen ministre Omar saar mi nekk ci gouvernement am CREI ne woon na da koy poursuivre. même institution bi. waay yóbbu ay saaga. moom moo jël ab saaga. institution boobu moo fekk ab saaga kat mu muy muy muy muy muy muy comme qu'est-ce qu'on muy live ak moom. Mm-hmm. institution boobu moo fekk koo xam ne son seul fait d'arme mooy di saaga nit ñi mu jël ko def ci ay liste yóbbu ko assemblée nationale mais donc institution boobu man encore waa fois ngay comprendre ñi wax ne ñoom ñoom dañoo jàpp ne bu dee wax mën nañ tëgg ay bool mais loolu laa wax xam nga man xam nga xam nga man man euh, man foofu laay waxee mhm. c'est que am na ñu bari ñoo xam tamit comprendre mais man foofu laay waxee dama ne mhm. institution bi ku ñu fal pour mu incarner ko ki ko war a incarner dafa war a jaar ci yoon teg lépp moom mooy institution boobu. lii la laaj li institution bi laaj. Mhm. na ko jox ba mu mat sëkk. Mhm. bu boobaa. non mais attends non non non euh, sëkk Fatou. Mhm. institution baa ngi nii. yow ñu fal mënu ko faa jëlee. pour yow nit ki kay moom moo déterminé boppam. doxal réew mi léegi nag yow yow mii yow yaa ngi koy doxal boo ko doxalee normal. boo boo respecté boo ñëwee jalgati. boo yéegee fañ la fañ la teg nga nekk fa. waaw léegi nag yow. fañ la teg nga ne yow ngay jalgati. di mm. def di def yii di def yenn yi dégg nga détournement yi di def ku koo xam ne dafa euh, sàcc ñu jël ko falaat ko defal ko promotion. Cheikh Tidiane waaw yooyu yëpp Cheikh boo wax ko ci lu simple. mi ngi mel ne ma ne paan gi ak paan gu bees tàq la. Mm-hmm. dañ ko jënd mu bees tàq. ñëw teg ko ci kër gi paan gii. buñ ko yóbbu ci wanag parce que paan gu bees tàq la. Mhm. kenn kenn du ko yóbbu ci wanag. Mhm. xam nga lu tax parce que jëmmi paan bi moo fa ne. mais paan bi buñ ca defee ceeb dañ naan paanu ceeb. bu buñ ca defee soow ñu ne paanu soow. buñ ca defee ndox ñu ne paan ndox buñ ca defee leneen. ñu ne paanu leneen. leneen te boobaa danañ ko jël yëpp ko ci douche bi. wallaay bés bu amee leneen. mais mais Moustapha donc institution bi en tant que tel. Mm. il faut que ñu comprendre ñu comprendre te institution comme le dit Cheikh Dia il le dit parfaitement bien institution bi en tant que tel ñun ñu ñun ñëpp dañ ko amee respect. Mm. mais bu fekkee ne ki koy incarné moom. respecté wu. Euh, ni nga ko waxee sànq fañ ko war a teg tegu ko fa mais nit ñi réagir ñeneen. Mm. wax naa la ne la Abdou Diouf. Mm-hmm. may ma rek tuuti rek ma daal Abdou Diouf. bi muy nekk président de la république du Sénégal mais Abdou Diouf bokkoon na ci président yoo xam ne vers la fin de son règne kenn moom la président mosuma gis président bu ñu contesté noonu Abdou Diouf. Mm-hmm. mais Abdou Diouf 31 décembre bu daan ñëw toog. ba ne mm-hmm. sénégalais sénégalaises mais ñëpp la teg di ko déglu. pourquoi parce que ak loo mënti reproché nguur soosu di Abdou Diouf. moom dafa mel ni moom institution bi mu incarné moom. sëñ soo ko gisee xam ne kii institution bi la. ñu doon déglu lañ. Mm. institution buy dox a ngi nii di dem. mais Moustapha ñiy défendre wala ñi ñi xam ne ànduñ ci. Mm-hmm. concert de casserole bi. di wax ne peut-être euh, gars yi comme discours le président di wax. Mm-hmm. après discours bi ñoom dinañ certainement dinañ nekk si plateau yi. bu ñu commenté xam nga journaliste yi def débat 31 décembre dañuy def débat sur le discours du président parce que 31 décembre discours président rek moo fa am. Mm. mais su fekkee ne discours président dafa ànd ak ay ak casserole. Mm. mais bu ñu dee débat dañuy débat ah <laughs> ah, toog ñu war a wax ci discours président président waaye dinañ wax ci casserole yi. Mm. que act parce que ñun nekk ñu pour débattre ci lu président de la république wax. dañuy débattre ci lii nekk actualité. kon nekk actualité suba. mooy président de la république di wax benn actualité. beneen actualité mooy ay Sénégal di tëggi bool. Mm-hmm. su fekkee ne tëgg bool yi xumb na ñu ne xumb na su xumbul ñu ne xumbul. wallaay te xam naa mais mënoo ci dara. Mm. te suba loolu la ci actualité bi la bokk. ñii di Sénégalais mm-hmm. ne d'accord na kon. parce que mm-hmm. bu demee ba ba décrire euh, ba décrire institution bi nu mu mel ci côté boobu d'accord d'accord ma boobu mooy d'accord na euh, pour man. Euh, kilifa kilifa bi ma lay wax ni woo dem mu ne ma bi nga defee démonstration par da nga waroon wax rek ne sama yoon nekku ci mm. mais du wax sama yoon nekku ci mais il faut qu'on se comprenne encore une man waxuma Macky Sall waxuma Cheikh Tidiane Gomis waxuma Serigne Gueye dama ne l' institution bi nga xam ne mooy le président de la république xam nga c' est une institution boo xam ne euh, ci Babacar Hussein Ndiaye doon wax ne amul ndey amul baay amul rakk amul mag amul jabar amul dara. Mm. institution la. Mm. kooku dama ne institution boobu. nañ ko tuddee Serigne Gueye. Ablaye Wade incarné ko Senghor incarné ko Abdou Diouf incarné ko tey Macky Sall incarné ko 2024 keneen dina ko incarné dama ne à de cet instant là ko institution boobu laa wax su dee wax dañ ko war a déglu mhm. maintenant soo jàppee ne Macky Sall mooy wax mhm.